بنعمة ربك بمجنون حمد والشكر لمن sant la sëñ Touba ci bisam bi tey sant sëñ Touba ci bis bi mooy lii sëñ Matar Dieng def fekk ñi nga xam dañu néew doole mu fekk si leen fexe ba seen xol sedd ñu mën a bég ànd ak moom ci sant sëñ Touba ci bis bi. way yu fare fii si Touba Bagdad amuñ lu dul di sant Serigne Matar Dieng mii amal ay ndimbal yu am solo si ñoom. jaare ko aussi Baye Saliou Ndiaye di kenn si ñoom sonnoon nañ moom sonnoon nañ moom fi mu ñëwee foofu la xanaa yëf yi de xanaa xol bu sedd ak xel mu dal ci sëñ Matar Diène lii mu def jaarale ko ci yéen yàlla def ngeen andil ko ba jottali nu ko amuñu lu sant yàlla bu wér a di ko ñaanal nag yàlla dolli euh, wéram bu dollu fanam yéen ñi nga xam ne yéen a ko jaarale ci yàlla yàggal leen suñ kanam ba lii gën di ñëw ngeen ko séddale. mu di tonnage ceeb bu takku boole koog ndox pag yu bari ak it poisson canette pag yu bari également waaye tamit une forte enveloppe financière di koppar gu takku moom la leen jébal ngir nag ñu mën a waajal seen màggal Touba. yàgg ngeen ko séddale nu ci jot kon nag yàlla na yàlla taw feexal ñun ñëpp. yàlla may ñëpp ñëpp jàmm ñi itam yàlla wéral leen yokk seen kàttan sëñ Matar Diène yàlla na ko fi yaa saa borom yàggal te wér ñi nga xam ne yéen a jiite mbooloo mi itam yàlla na leen fi yàlla yàggal te wér yàggal seen taxawaay ci daraja xaadimal Moustapha ah li ngeen bëggee ci yoon wi li liggéeyal yàlla na leen ko sëñ sunu borom defal ci daraja xaadimal Moustapha. sëñ Matar Diène ñoo ngi leen di ñaanal rek yàlla na nga yàgg. yàgg a joxe yàgg a jiite jërëjëf jëf yal na bakkam bi dëgg doon. sëñ Matar Dieng noo ngi lay sant di la gërëm di sant euh, sëñ Ndiaga Kane mii di sant it Baye Sall mii noo ngi leen di sant ndax lu lu ñëw rek ngeen woote taxaw ci jàpp leen te xam na ne ñi yor ay handicapé la mënuñu dara sama handicapé bi nag pousse-poussam daa yàqu Baye Sall. sëñ ngi koy sant bu baax di sant Baye Sall mii tamit ñu koy sant bu baax ndax lu jot lu xaw mu wooñu amul lu ñuy waaye loo xam woon ñu koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax ci barke sëñ Touba yàlla na ko sëñ fay te ñam fi fekk yëpp yàlla may leen xewal ak yokk ak mujj. ma yàlla yàlla mi yokku jaam yàlla na ko yokk yàlla na ko yàlla may wér gi yaram yi muy yéen ñi muy jaar ci seen loxo ngeen di ko tasaare yàlla may leen wér ak xéewal mosal leen ci cat akum ndokk ci barke Sidina Muhammad ngeen yokk nag jumaay Touba ji ci barke Sëñ Fallou Mbacké mu yi di ñi nga xamante ni visuel lañu gisuñu ak sax tout tànk yi nga xamante ni dañoo mënul dara am paralysie seen waajur yi sonn loolu ñoom ñëpp tase woon nañu fii waaw sëriñ Matar Diène man maa ngi lay sant di la gërëm kii nag sama rakki boroom kër la dafa feebar. dimbal yi ñu tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm rek ndaxte ku man lu baax di ko def xool ña koy yelloo nga di leen ko jox ñu ngi sant di la gërëm abaar makrumatan qad sa'alnahu fi ajam man sara ina yasra la sarsalakat khasadu إن الذين إلى سرسار خد خسدور سرسار خد. sëñ Maxtaar yenn de suñu xale yi ñuy jàppale te sonn nañ ci lool lootu nañ ci lool. ñu ngi koy ñaanal nag suñ boroom yal na guddul fanam yokk ay wërsëgam kàttan suñ borom. sarsaare xar xasada Baye Sall nag def na Madina moom nii leen ko daan gisee naka jekk naka nii leen ko daan tuureel dina ko jox wax dëgg yàlla Baye Sall moom lu waay jaare cebul xoom il faut lu waay jaare jul xoom ñëpp dañ si jot moom ñun handicapé yi nag moom sant nañ Baye sant nañ ko wax dëgg yàlla lu sëñ Matar jenn tamit ñoo ngi sant la gën a bëri ñoo koy sant la gën a bëri lool ñoo ngi sant la gën a bari lool sëñ Matar jenn wax dëgg yàlla mais nag li ngay jox fi nga ñëwee baax na de fi nga ñëw dafa mus di dal ci sëñ xam naa ni ku ñu bàyyi xel la te it ku yàgg di def lii la moo tax bi ma woowee ne ma Serigne Saliou foo ne ma ne ko maa ngi Touba de mënu ma ñëwal ci kër gi jël si teraanga yi fexe ba joxal ma ko ñi nga xam ne ñu ko yelloo la ñu koy too te it bu ñu fàtte ne ñoom dañu am gan ñoom néew doole yi ci dëkk bi la ñu dëkk ñu war leen a taxaw jàppale leen fexe ba encadré leen ba seen dara bañ a manqué sëñ Matar Dieng bàyyi loolu xel joxe ceeb joxe ndox ak boisson ak enveloppe bu takku ni nañ fexe ba ñoom ñëpp it ñu jot ci mën a màggal ni ñëpp di màggale sant la sëñ Tuubaa ci bisam bi tey sant sëñ Tuubaa ci bis bi mooy lii sëñ Matar Dieng def fekk ñi nga xam dañu néew doole mu fekk si leen fexe ba seen xol sedd ñu mën a bég ànd ak moom ci sant sëñ Tuubaa ci bis bi. la muy def di koy nëbbu moo ëpp fuuf sax la muy fesal moom sëriñ Matar Dieng mi ngi liggéey lu am solo si taalibe yi rawat na màggal Tuubaa gi ni mu ko defee si handicapé yi noonu la ko defee si yeneen couche yëpp sëriñ daara yi ak néew